góor gi nag moom xam nga daa xaw a xorom moom xam naa ne moom waxaa bi xam naa bu ñu sañaan rek muy noppi léeg-léeg wax dëgg yàlla day day yàq seen mbir euh, góor gi wax ñaari mbir saxal loo xam ne nee na yàlla da ko bind ci lawxul maxfuud maanaam mën a xam daal loo yàlla da ko bind ci lawxul maxfuud góor gi saxal loolu nga xam ne moom ci boppam àgg na ci naa yàlla bind na nangam ci lawxul maxfuud ñu ne déetewaay góor gi ne ab jaam man naa àgg ak sun borom foo xam ne yàlla da koy may bu ne kun mu nekk maanaam kun fay kun boo seetloo na ñaari mbir yi bokk na ci li wahabi yi gën a bari lu ñuy soow diw dane yàlla may na ma kun fay kun wala diw dane daa xam lu nekk ci lawhul mahfuz te moo ne ñaari mbir yëpp di seen sëriñ wax na ko ibnu taymiya fee ay jullit ñu doon waaye jàmmarloog ñeneen Ibnu Taymiya ne yoon wii kat jullit gañe te loolu sax yàlla da caa dolli ne yàlla da koy bind ci la lawhul mahfuuz ah, nga xam ne buñ doonte sax nangu nañ ne yàlla nee na xisbullahi humul xaalibuun waaye xare sàngam nga ne ñooy gañe loolu doyatu la nga yàlla da koy bind ci lawhul mahfuuz loola moom doy na waar beneen mbir bi itam a ah, ngay wax loo ne ab jàmm mën na ko am ba ci ah, di wane ci ab ci indi ab asar di wane ne ab jàmm bu toppee yàlla mën na koo may kun fayakun ah loolu nag moom xam naa ne góor gi moom xam na xam nga góor gi nag daa xaw a xam naa waxaabi yi moom buñ sañan dañuy daal di lakk yenn paas yu góor gi wax rek ndax da leen dut arrangé ndax li gëm loo ñit ñi li xew daa bokkut ndax boo nee sama sëriñ ci ahlu sunna ahlu la bokk moom nangam du ko wax sëriñ sàngam ñooy ahlul bidaa buñ xoolee sa sëriñ daanaka ñi ngay tuddee ahlul bidaa lañ wax lépp sa sëriñ wax ko xam nga da ngay daal nekk ci situation xaw a xorom moom xam naa xam naa daal reelu na lool daal moom daal man daal defoon na moom ma ay lawhul mahfuuz ak yooyu ay ay kun fayakoon ak yooyu yooyu moom xanaa sëriñ seeni sëriñ waru ko mën a wax nag moom xanaa ànd ak nag ña koy wax ci sëriñ tasawuf yi sax ñoom lañ leen di waxal ak nañ fi réer mbir ma ak lañ bëgg wax sax da benn moom waaye bu fekkonte ne sax euh, daañ ca boole seeni sëriñ mu tane waaye féetale say sëriñ loo xam ne si ko bëgg wala bu ko sëb sëb sëb sëriñ waxee fu ne nga dugg ko wutal aw lay wala ab maxraj bu mu mën a génn bu dee sëriñu jàmbur ngeen ne xiim daal di sikkal ne ba ni du biddaa la bu dee sab sëriñ nga ne du biddaa nangam la ci jublu wala foofu la ko doon waxee ak lii na lee la jublu woon di ko ay ay maxaari jëkki ak i tawil loolu moom weesuut du dara lut ak lu dut euh, euh, euh, ak ak ak waxta yàlla tëxut